gaynde bugul mum baram dawros remu timban ya ngore mbanyik jof gaynde gaynde bu ci mbaan yaa ngooroy mbañik joob gaynde gaynde gaynde bugul mum yaa bu lay dunde juube koori kumba moodi mbañ ko muma pee juube mbañik joob gaynde gaynde gaynde bugul mum dinaa ko def historique bi léegi waaye dafa nekk euh, damoon naa di ko wax su ma jël ni ci koore bi def ci tout dafa bi koore ma ne gis nga nit ñu ne ma ma ne ko balaa ngay wax kenn dara wala balaa ngay bokk yow da ngay sa bopp soo bokkee sa bopp jox jël sa bopp ku la gis dina la jox foog yow nga xam lan nga doon pour nga xam lan nga doon nag il faut nga dellu cosaan nga xam yow yaay kan boo xam yow yaay kan di nga xam bu ngay taxawee ci société bi bu ko defee yow comme foog nga sa bopp nit ñi dinañ la foog ci gàttal akum parce que yi war a wax historique bi ak objectif yi jóge bi bu ñu fay àggee dinañ ko dañu taxoon nag balaa ñu ci njëlbeen dañuy joxe ñaan am nañ imam bu fi nekk oustaz lay bu fekkee ne mu ngi fi Mamadou Diouf ah mu ngi jàpp baax na kon comme mu ngi jàpp dinañu continuer wax ni programme yi di tëddee programme bi nii lay tëddee gannaaw bu ñaanee ba pare bu fekkee ne monsieur le maire wala son représentant comme ci dëkkam lañ koy defee mu ñëw dalal gan yi parce que am na ñu jógee ba bitim réew ñëw kon ñooñu dinañ leen tatagal dalal leen buñ fa jógee am na koo xam ne nii suñuy wax association tey des ressortissants de jafe-jafe bu accès bi am na ñu ci daf ñi nga xam ne depuis les jours yi ba tey ñu ci jàpp ñu jox ci kenn suñu papa. Moussa ñi Moussa ñi ci kàddu moom dina leen wax peut-être mun na leen wax itinéraire bu ñu jógee foofu ñu jox le jafe-jafe moom aussi dafa mel ni rek ñu ngi biir jafe-jafe parce que association bi jafe-jafe moo ko moom aussi Moussa ñi ci ay dundukaat su ñu yóbbu Lansar le secrétaire général le coordinateur nga xam ne daanaka moom moo ci nekk di dox di wax ba mu ñëwee fii dinañ ko jox mu sànni ci ay bu ko defee aussi balaa ñuy demaat benn ñu jox comme rek am ay ñu jógee fii ba gàtt bu dee ñaar la aussi ñu jox leen le jot jot jot na ci jël ñaar wala ñett bu ko defee ñooñu dinañ wax seen tur. ñoom aussi ñu wax bu ko defee ñu ñëw ci panel bi nag ndaxte loolu nag moo waral bés bi bés bi mooy lan mooy ñu dellu cosaan ñun li ñu doon suñu maam li ñu def ak naka lañ ñëwee ba nga xam ne nii lii jafe-jafe soppu na ndaxte loolu loo gis tey bu yaatu ci benn point la commencé loolu dinañ ko fi leeral. te yaakaar loolu moo gën a am solo aussi euh, ci parents yooyu nag raade na ci bëri euh, programme woon nañ ci oto Doudou Sarr bu mbulu mais malheureusement ñëwul parce que dafa xaw a ma waaye nag demoon nañ foofu boobu mu wax ñu audio yi mu ngi fi après dañ ko teg bu ñu fa jógee ñu jox monsieur Abdoulaye Baye l' ancien maire. professeur émir koo xam ne nii bopp fu mu taxaw ci Sénégal bi am nañ ko parce am na waa bu bëree bëri waa bu mag a mag a boo xam ne béy na ko ci rencontré naa ay universitaire fële à Saint-Louis am na benn panel boo xam ni moom lañ ko joxoon moom moo ko animé à chaque fois ma ko ñëw nag ah, yéen seen mais boobu mu ne mu ne macha allah ma ne ko waaw nga fa kon nag monsieur Ablaye Mbaye yal na yàlla wëral kër gi yal na yàlla guddal fan yi yoon la fa ci kanam bu ko defee buñ fa jógee ñu jox Paa Moussa Koor bu bi moom dina leen wax naka la jafe-jafe tëdde depuis cosaan la ña ko sos ba ni mu màggee ba ci bi demee fii ba gàtt ba ci bi loolu yëpp itinéraire bi moom mag la yàgg nag mag mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla bu ko defee dinañ xam effectivement naka lañ jaar ba tey su waxee jafe-jafe ñu ne mu ngi ba ñoom it mu ngi ba ñoom baaso ñu foofu yëpp ba jiloo wala lu jar a la ñu xam effectivement jafe-jafe yaatuwaayam ak ñan ñoo ko yóbbu ba foofu loolu lu am solo la su jógee ci

Euh, moo ñu fi dajal ah, wax ne aussi ci ngoon bi dina am benn soirée ndel ñu dellu jotaat samba bi nga xam ne gën nañ pénc ñu jéem a seet naka lañ mu ndax mën a yëkkale benn sax bu pénc lii daal lañ wax nañ tënk ci gàttal ne nañ ko wax ak mbooloo bi bu fekkee ne Mamadou Diouf mu ngi fi Mamadou Diouf mu ngi fi waaw wa sallallahu ala sayyidi basar سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لنا ko ñu sante suñu borom li nga xam ni moo ci julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu nuyu bi ñu bokk ñu ñëpp muy yu bari yoon muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu paree ñu def ñaan comme ko wax ñu jàng fatihatul kitab ku ko man ñu jàng teve que, sei lá, fazer a o público foi diretamente disseminado. E eu canal eu ia tudo. Catolina, né? ñaax leen li nga xam ne moom lay taxawal tey euh, dafa am na ci méngoobu islam te mooy bokk bokk googu moo tax nit ñi limaan yeeg saa diine yi ñëpp a ngi fi kon li ñuy def dara gënu kon ñu góorgóorlu ba ni mu commencé ñu ñaan yàlla mu àggee noonu ci mbégte ak xiiwal ñi nga xam ne ñoom dañuy jox ñu war ñu waxtaanal ci histoire yi wax ñu li ci gën a rafet bu ko defee ñi ñëpp ñu bég ndax histoire am na boo xam ne boo ko àggee mu nga ak donc ñu jël ci ca gën a rafet moo tax boo demee ci islam dafa am lu ñuy wax taarix ak siira siira moo gën a oyof taarix kon ñu góorgóorlu di doxalee ko noonu incha allahu nga xam ne su fi jógee mbégte nga yóbbu lii nag comme dañ koy doog a commencé commencement waaye alhamdulilah ci amee mbooloo mu toll nga xam ne ku ñibbi da nga mën a waa ña ngay fekki ak ña mai deux mille vingt et un bureau Xasaaga oten o xooytu xay bureau Xasaaga oten xooytu xay o bureau Xasaaga mi andiyo mi andiyo o maaka ɗat présidence fe seni sengora noxe axen ke naku njongor trésorier fene axen no euh, e lansar ak jen ci moom jéem ak yooyu peut-être naa seetlu pafle pafale nii euh, Mamadou Diouf otti yo euh, ku ànd na lu islam a def fa aada te Mamadou Diouf ten saqut o birole koy a yaaja mayum te nawe men xaye den mbalak o mbalak o o ɗokoli aɓe ngarata e musukoɓe aɓe ngarata e musuko lankeɓe fofde noon nden ñaaƴi allah yi bo i mbaɗi ɗumen hayre ɗi simtinaro ɗum reda koye e hay fe ɗi retnanɓe ya sambarade ko fakkati ino falak ya sambarade fot ino falak ki i ɓugnatede def jafe jafe ammo ƴeelo an ammo ƴeelo an te ambokato allah yandora an nafandorayo o maate ande o kiin wiina andu ko maat wiina saru saɗaruga saɗare o kii kiinu ɗi ya i moƴo bokatiro i moƴo bokatiro e, e, e o ɗeetanga maɓe laya ño ndikiriñolaa gami gami gami nda maam in ke ñooma addukuyo maaga ñooma noxe saate fu refna mbiir a foga jafe jafe lakas na xa ñoom ga'a maaga jegle ga'a ma mbulu ga'a ga'a ga'a ga'a a taxitame maaga association fe koy a fexeya bo xan caate jafe jafe jafe nama mbogilo yeni comme ne un anda we taxita xeɓaxe taƴik kam ñoomiide mo caate harbatu caate ne kawa maɗa keefo waɗi no jafe jafe yaag jafe jafe nu ande ino inɗeewe bat inɗeewa dakkoof in bat inɗeewa dakkoof in fadi moƴo ino ko njal calel ke kedi commencé na hayre kedde awa ka awrimo feet e roog soom andum yanga me i mi na o mbat me i mi na o mbatte refe imbaago njëriñ xeet fee te xeet jafe-jafe ak yi nga maa àndoon ne fa daal naa xanaa la wéy te kaa ko def xam yaa koy xam i baato i noor ndax ndax i mojelo and foofu daa i góorgóorlu lool ndax i mojelo and andee i bokka coorang yeeg yaa ko ba i njëkkee doole inde ko nga koy ko ɓaakolen hani ñegdole hani han iseɗare to hani ɗagoñelo an yasam roga damta in yasam roga damta in ne leytanuma rek yasam xet xaƴa ɓaray ko xet ino falak assalamu aleykum wa rahmatullah fogole maxe walɗano naxa imnano hajal naanu no haydone alona e ɓesnala e waɗat tan jafe jafe ko ɗum no jafe jafe aref saahle sénégal fa gambiya aɗo ko ala e alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada hadirin bo dia udah kawaro kin maro. Ke anonai tahu ke anonai tentahe. Pada nama nama dari ya Adam. Kumuka sampai dia nak mbaɗa ɗemmoda mbaɗate refa room somna refa maga o humo ha heɓumna maga yo o ha toylowuna yit maga yo ndaye o hajale ka refa mbek a refa yobbude a refa jegal saf mana roog ndax comme ne xaye mo jamo jeg yakaare o kiin a ga'am ne fo kiin Yandagirou naga am ñaar kii naga am ne ko kii daanaka mo dina loga yaaga ke fogaame diina paate kadira o fop paate kadira ngentan paate kadira bugol e we anon e fonde yo ofte e dere sonnida jafe jafe andef o dakaru wo imam mm, wonnaga xano xeɗan we anon e den bo ndefunoto maɗatinono ndaw o yiyande duufo tan a sahanga bo wiɗo ñaaman mine mbaɗama giɗi a giɗi mi jommoten e eh, naggata o fogole sénégal ko gambiya mi haydalna ɗum no ñogo jafe jafe fof we sénégal we gambiya fof mi haydalna ɗum daañu ne bisimilah ñu mbari ba jàmm sëb jàmm baat jàmm sëbit jàmm jama alo jamane jàmm bu abada jàmm doomi adama tam ni yegg doon jàmm rek daanaka yaakaar am nañu mayu amal ki anawo kumuka alo na yule kumaka alo mbaga yo kat maga jàmm gidma fop yakara fop ndaxa kene genoxuma mene refe goora e refe jamba xane refe jala e refe ndok yaay ka roga no one o kim kaga kim widana nuun moƴo yakara moƴo doxna no xooxe ne doxnuma ne doxnituma xooxes a roog ceertanoe hakke hedoo men mbug indamoode ngoyoode ande paam ɗon jublu o enen dowda paam ɗon mbaɗat ga heɗa fogo yo allah waɗani assalamu aleykum wa rahmatullah Thank you. Jokkal uh, chef de village Ibn Ibn Makapa yaakaarame discours a wiica a jega njiriñ a jagnita yaag ine ngeɗanga paax yasam roga ceego wod senel parce que ndiki ref lii ngay def fi ndax nit mbokkam kon li li ñu def fii nekkat buñ amatee yi nag bu mën a ne buñ ko yëgee dina ñëw boo takk ngeen lii ngeen liggéey ko noonu kontaan nañ ci bu baax sant nañ ci yàlla bu baax niñ ko defee rek yàlla niñ ko fekkee rek yàlla ko fekkee nekk déwén déwén dina ñu leen ñi koy def fàtte que daal di ko fekkee jàmm nañ fexe ñu yëg ko am na laay ko yëgee rek taxawee rek day ko yëg yàlla foog séeréer am na den genum me xaye boro baxtan ka and naye ka jegna o njiriñ o no ino kulu séeréer yaa koy boy ndeta ten inowe inoor no gabi mais leya fop sang lewum no gabi def lek séeréer def lek gabi association yi ne informé an 2005 a adoxe commencé waaye comme ça ne u leyna rek ten i mbatu inoox ino wiin with advice with beautiful that. If boy then jam, if pastor fadet then the boy, if no perros up. Why can it be sent over in a started court? Parce que à des started court. Ya sino me ingeno na kati pati magelo. Why started court ko haram na na kara ni inti no by your court. Kon ya ko started court kati kala manu haram na kara kara ko sino no na dami. Ah, ye informe ona, kay ko ka den le ane. kono ga ne ko ga associé abone ame ta 15000 personnes apa wi kune ka bay ko wi kune kune ka bay ko be ka ne ame ta association ya ko ko man ta ga 18 personnes be 15000 personnes ama ko may to kede to ne ta ma en ma na gami dole be ti ne ko ta ma ya to to ko ga be tani ba woni dole pa ga ko ko ro ga ni ko kam ɗo mila cate kiim u cate ɗika wama andoona ye cate seereer o vingt deux village ref maaga ma andoona ye cate seereer seereer o ku naawa ten kama ñoominaaga ndiiki ino i ndefa ndef leŋ put etat leye ndef leŋ o ɓeerange na président weeno jege parce que o tene andu o kiina koy waago andin ba pare o parmasal comme o tene andu o laanga nene defi maana fogan jafe jafe simnaxam

jafe-jafe ay jafe-jafe ete wooyo fa ina koye jafe-jafe gambi inde faten ha koraten e ndaajina ka i ɗum tognayo ten bo ƴeɓteno ndi ka andona e simatera o botemadi yam i ngoyoka ten ndefte bo a taxa i nga aye maak gambia andayo andat jafe-jafe a seereer gambi yam simaro botemadi e no keɓe en ɗamname hane sima mako annduɗa e ɗino mofano yimɓe fof e ñalaɗe ɓe ɗinon gorke garnayo yimɓe mbuga putelalo in haɗa aɗa cosaki ken tax in garu men hane jamiɗen so kurenna tami refo seeɗer leyɗe o ñakke ñakke refo worange ke xamnano sénégal yakoy sénégal ko ɗami fof lego ɗino ɓe refna seeɗer mbuga an haɗa cosan maɗin to adamaki ken atin ɓinnen kane ko injaɓin haye o foye kan gimma kenamo botanak sima kelifa ke ndefna men lala ine lala nune ino séné gambia ino ngara toog mborlo toog sénégal pour i an xaret cosaan pour aada simna fop gimma fopi tamet lala nune in we ngara mbogo toog nun nu lala in xaret aada that, but noonu ma ñëw ci li nga xam ne moom laa leen bugg a baaxee ku ne jafe-jafe ne séeréer kon war nañ xam fan la séeréer jóge ndax lii di jafe-jafe lii di siis lii di saal lii di gàcce lii di jooju lii di gàddu et cetera yëpp séeréer la mais bu jóge ndax day taw rek ci asamaan daal déedéet fokk ñu xam quand même cosaani séeréer fan la jóge ci li ñu jàng ak li ñu dégg borom xam-xam yu mag ñu mel ni ñoom Cheikh Anta Diop euh, ñoom euh, historien yu mag yëpp moo leen limee dañu bari ñëpp dañ ne séeréer bi ñu ngi jógoo jóge bëj gànnaar bu Afrique ca nit ca nit Égypte fa la fi xam na yi ne woon pharaon yi dégg mu ku na dégg na Égypte ay ak ñeneen nit ñu ñuul boobu saara bi ngeen di gis nii naataange la woon am ndox am garab am lépp race yu bëri fa lañ ne woon fan séeréer sa ne woon mais seen cosaan dëggantaan buñ ko topp rek séeréer ci boppam mu nga jóge Inde lenn dravidienne les dravidienne de lenn foofu la séeréer juddu mais yàgg na rek li ñu wax ay junne junne at mais li nga xam ne ñun foofu la ñu mën a dare mooy fi ñu leen xamee mooy la vallée du Nil muy Égypte ñu dëkkoon fa nag dëkk bu ay pël ay ay soirée ay ay mandel ñëpp fa dem mu am jamono ak boo xam ne ci la farat di commencé le Sahara di lakk di lakk di wow ba mooy désert bi ngeen gis tey la ko dalee Tripoli ca euh, euh, euh, Libye jaar Algérie loolu yëpp ba wàcc benn yëpp day dem ndax du koy koy ca at yooyu la commencé. huitième siècle après Jésus-Christ huitième siècle ah exactement ñu naan sept cent quatre-vingt-dix ñu naan sept cent quatre-vingt-treize donc bi commencé foofu saa donc séeréer nga xam ne moom suuf la xam ak ndox parce que bu mu natt day béy mbaamu sàmm mu jóge fa ndax mu def suñ dund mars bi ñëw nag ñu départ août si nag le terme terme mooy Mauritanie ci bëj Saalum Mauritanie am na emploi bu mag bu la woon koy wax Ghana l'emploi du Ghana euh, capital boobu di tolloon bu Mauritanie mu nekkoon emploi boo xam ne Afrique yëpp moo ci moo liggéey ci emploi naata naat ñëpp na fa Mandeng yeeg Soninke yeeg Séeréer seeg Pël ñëpp na mu nekk emploi boo xam ne fu fu ko ni dégg ñëw ndax naataange malheureusement ñu toog ba exactement vers 1076 1076 ay berber almoravi ay arab ay naar jóge feneen ñëw xeex ci bu misale tas ko complètement mooy la chute du Ghana au onzième siècle alors ndigal loolu am na kon euh, ñu war xam ne ñaw def na xam ne fa toogoon fa mën a toog ñu daw ci uut ci nag ba ñëw euh, ba saalu réew ci lañ ci vallée bu ñu wax la Namadiou mooy vallée du Sénégal le Tégrou boobu am na am royaume bu ne ñu wax royaume bu Tégrou ay couleur la ko newoon ci la séeréer yi ñëw foofu ànd ak Soninke yi ànd ak ñeneen ñu nekk dans le Namadiou parce que il faut ñu continuer dund il faut ñu continuer bi ba tey jii am na sart yoo xam ne boo demee nii ci ay am na sart yoo xam ne ñu ngi séeréer yi seen ak kan ak kan. naturel yëpp boo demee ci Égypte du ko dégg roog roog bi ñuy wax roog seen mooy yàlla roog moo doon moo doon yàlla Égypte yooyu loolu moo leen di woon ne Cheikh Anta Diop bind na ci téere wone similitude yi nga xam ne maanaam niroo yi am diggante séeréer ak niroo yi ma def donc bi ñu ñëwee ci vallée du fleuve Sénégal Berber Almoravid yi jóge ca ko di indi islam maanaam di def jihad ñëw fekk leen foofu tasaare séeréer bu ko na ñoom ñu bàyyi bu couleur yi sarakole yi ñu convertir leen islam ñoom séeréer yi wàcc si biir Sénégal boobu Sénégal amoon na waaye nag biir Sénégal lañ ko mën a tudde ñëw ci bët saam moo tax tey boo seetloo euh, euh, euh, réewi Sénégal ñi fi gën a doon sëriñ ñaar saraxule lañ wala tukulóor boo demee Touba tukulóor lañ boo demee naka lañ ko xam Tiwaawan tukulóor lañ nga ñëw Sokone tukulóor lañ et cetera soninke ñooñu ñoo nekk ak convertir moo tax fois yi mag ñëpp tey ñooñu lañ séeréer bi ku ñëw utti na le sud bi ñëwee jóge foofu ci lañ ñëw nag waalo ak jolof waalo jolof ñoo sën ci fleuve Sénégal waalo bañ fa jógee ñu Euh, boori ndax ci i pegg géej gi na ñoo foofu lañ jaar jóge fa ñëw sur la petite côte ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo ñëw kay nga xam na ñoom napp lañ xamoon parce que na aussi napp lañ fa doon def tout le Sénégal man nekkoon naa Fuuta am na dëkk boo xam ne ñu koy wàlla ñëpp saam lañ sant ñëpp saam lañ sant ñu woon ma fa séeréer yi dëkkoon ay njàq ñu ko fa génne njàq ñu amoon ay dibi door ay ca temps yi kon dëgg la ne Sénégal soo ko euh, séeréer yi ak tukulóor yi yàgg bi ñu ñëwee ñenn ñi jaar ci dans le Ferlo ak le Jolof ba nit nag ut ci Bawol ak Kajoor ci dafa la si la ba naan ba jógee Bawol ñëw si bi ñëwee si dëkk ba njëkk a tëj mooy ñaaxal ñaaxal boobu fa la gars yi tasaaroo na ñii des si ñii dem faar bi ñëwee Saalum dëkk yi njëkk a tëj nga xam ne mooy dëkk séeréer yu mag yi kawoon ca la ko gàddaay ca la ko njafe-njafe ca la ko jooni ca la ko ñii yëpp mooy coxtaan yi doon te te au douzième siècle njafe am na ren boo ko calculé bi ay at juróom-ñetti téeméeri at huit siècle parce que c'était le douzième siècle douzième siècle mooy mille deux cent à peu près boo ci tegee huit cent deux mille nag donc njafe am na tey huit cent ak moom ak Saalum moom ak Saalum dañ naan jafe ci Saalum même jafe ak Saalum Saalum diwaan la du dëkk Saalum li ko ci Saalum soirée boobu teel wàll yi ñëw nañ dëkk yeneen ñëw dëkk na pël yeeg soose yeeg ñëpp ci taal boobu la soose yi jóge boor yi bari boor yi euh, euh, gaal jaar ci gaal bi ñëw sëñ bi Sokone Sokone sàppale Kaaboukounda premier tur Sokone Kaaboukounda premier chef de village ba xam moom la soose yi wala Sirman Kamara la c'était vers les années mille huit cent soixante mille huit cent soixante dix ci lañ fa c'est le chef de village mais bu leen fàtte ne naka la fàtte soo ko digili la bokk tool yi jafe-jafe yi la woon mais kenn dëkk fi woon nag moo tax ñoom bi ñëwee dëkk fi ñu tudde ko kaabu bunga kaabu doon

parce que ay jël war lañ ñoom bëgguñ seetoo dara ñu uuti boor yi euh, ci nekk dem boor yi Lo dem boor yi Diohine dem ba Mbour dem ba Malicounda ñett nga nekk Malicounda soo ko soo si Malicounda soo ko yeeg Korte yeeg ñeneen population Tabara donc fii lañ jógee alors boobu nag ba yëgal nekk jafe-jafe ci lañ ñoom itam ñëw ñu bëree bëri ñëw toog ñëw boori Sokone. dëkk yi ñoo soo ko mbulu moom lañ mu jàpp créé ci dëkk yu mag yi ñetti dëkk yu mag yoo fi daw njàppe na ma la waxee rek njóogoon bu mag njóogoon bu ak ak euh, leeraat bu ñetti dëkk yu mag yi daw waaw njóogoon euh, njóogoon bu je crois que coopérative bu soogoon bi dañ ko def coopérative jafe-jafe ki fi tegaloon président je crois que mooy jël daal président ñi fi njëkk a ñi fi njëkk a feete yaakaar naa ne fàttaliku naa bi jaar na ko fàttaliku naa bi binam lu fàttaliku na ndongo bi loolu nag bu ay passé gànnaagam la boobu expert bi dox société de prévoyance mooy li ma def suma li bi mooy tax bi la société de prévoyance mooy expert mooy tax donc pour vous dire que jafe-jafe ñoo jeex ko buñ ne ko dafa indépendant déedéet c'est que lan ngeen tax di jafe-jafe kër yu bëri pour nga am kër da ngay def pardon moo ñëw doon la buñ ne mbulu mooy jafe mbulu ci jafe la jooso ci jafe la yéen ci jafe la donc mais lii ci jafe-jafe sur le digg bi kooku kenn mën a doon te dafa continuer brassage bi continuer tey ndene Senghor fu ne xam na ko waa jafe la bu fekkoon yàlla jàpp ni ko mooy diriger bi tey ndax nekk na fi un homme politique et cetera et cetera dégg naa kenn wax ne léegi njëkk ci produit ci tey kenn la ko ay sëñ ñoo xam ne borom xam-xam au niveau national mo aga ah, sabun sai programe ke di pakai ada ah, to kate imbara ke su tok me ke ni def na ne wat dole imbara te mo me mbanya yo ke ando na ino ke bulu to kale ka ite bole i an kita rerete hotel of oh, aga e gaga ma o oh, o pokman to magali kira to yu magaka ane ka nyoka ga nyoka na tin wala ta ne na yome ya man fala yom ba yu fa yet kina to ko ku nda digi adna he buga ya kada to timbari no ko to na bon ko ta na ni ko tere in mo ku fa wala mo ku lakka dala yo na lamin ko ka anonai Masyaallah, asal balami nanti kue dari kawasan nyambar ala ya den ke andone maga deru bon konta na la mina su tok la ya den e ke tala ya ke digi tam an ko manu pare na la min in layna den bo khay a jom anga yo gede ala min am ba nyo gede faga o fo ge la mino ya ta ya ko la ko ko ko ya ta ya ma ya faga la mina ya ko ko la na la mina ya ko bo pe andone wana la ya den ke andone na ko na la min wala ke ke no na la min ka ka ka tawkat a yi onyowa anone ka imbastelo yi ino tere ka imbastelo yi wina damaye ino babu ko wina damaye ino ndebu ko wina damaye huwe na ko ino mojongo ndebu ko go ya koy ken khaye waju ke ang oyina anyaka karet na lang ken layan angi suros terevesa valeur ke adonai ni jen fakitak toge ndoko laytan ñaaɗitanoo bo kam mum ine sakko wine mbaɗo o respecté ay accoo haɗinke adama e balae o xuuga o na wara waro respecté koo to respecté koo tetake ke jegoona o xaƴtan mine seereer atu seereer adimam a njangnaamo a anndaamo a ngeennaamo bon ref men xaye kon mbita rotaa বিনো কিন্তু কোনো কিছু না বলি যোগানে গেল কে তুমি আয়া বাজার দেখা না সুতান ইরান উন্নন বাই বেটা তো জিতমা মানন সীমা মানন কেটা নাম প্রোগ্রাম এর মেন ইতুয়া কাহন দাই আজিয়া তারাই নাকে আজিয়া দান কে সাকে তা কানে কাটি মুখ না পাঁচ কাকি নুরুদিরো না বিচ পাম্বি এজনা মাকি নুরুনা laajte woon Fatou Ndiaye Sarr ne noon si ñu ak jafe-jafe ndaa jooto ña ne nuyu fa saba Sarr gisa ginoo na mana a ñooxa ba a ngaan bot bit abdiyati a si ñooma an kin jokum maaga jooto mago maago a jafe mbit abdiyati maago a jafe alaye jilol jooƴi jooƴi kinol tege jooƴi jooƴi kam ɓeeɗo o maɗo ɗum to dokina jilol gogokange jooƴi to dokkiro a jafe jafe ko maɗo ɗugaregina mene ndun yatakool maka jugal a mbakaga famle o waɗaga ɗo ɗo xano xano xana lewe jadi o faɗange ɗo ɗokki o sakit o xawe ɓe fana ɓe ko waxanga ndun yata jege mbena mbiyo anga a siɓinogoy ɗo anga bi Abdou Yacine ay doom bi Abdou Yacine ngara jafe-jafe anga jokka bo ngugulu ndigi yero bi nanen jafe sa ata ngalne Allah si arba kuma la sewor la la la sewor aga kenake la sewor ga awgal Allah si arba patik jafe sa arba kuma aga angate sabab sa ngi def sabab den yo kaata ka ñox ba a sonna tara danga nox futten sabab ne a ñoota a koɗogoñe a rok kam ak kam lum ne a siwir fof foof silip te jag mbina ɗogin ma foof le cur anda kaga dusara lananu te te saate nen ne nda laye babara lay nda babara jege saate ne sara xuna jegino a suwaxino a ndet yena ngana de tam kof yettorde fat ga jaɓe sarati ndiin laasegora xaƴ yoxi a nano teɓakuna a leyde e eh, xa mbanugol me tegino yigara yegole te leyde a ah, njaɓo xam de te yo yaq jafatu rek te ɓisimlaay yede ngarna bo a xaar a teg laasego a gara toxoxid a leyde na me fiñona koy refe ne mbin gari kon tax lanok mana mbin teeyo jaɓa tubaken fe ferdek degara jooɗeno fo jake jooɗa ko jooɗ satane de refe rek kuɗe refi sa satane moƴa a jake jooɗani yo de jam la segoɗa yeteka refka yaal saate e soɓa jaga surga surga faaga o ten ref ax ke na duusanin a aƴora bo juwara aɗa leyane o kena luuta fu nda ka tuga nuno xa ten jaɓe sa fata jaɓe sa tefe wonɗa segon janken doɗa majɓe dotta jaɓe layde d' accord aɗum ka la segora d' accord ɗum ka te la dettena jaɓe sa aɗa layde fiya coorama fote pare nda kan bugonalam ko o natam no coranke aɗona e tet saku jaɓe te layde nata on parno fo mbakangaraɓe Yunus Saare Nabil Diané yi teef yi àccoon na ko ba pare de am naa day baale tey kaa dugg na saa ba dugg te lay dee ba naa xam la ma nga daa waagee waagee taro te naa xam la sama tëdd te naa soo tëdd te cuura kaala laa seebo te cuura kaala la ko dinaa ko maa maa nga ñett foogaa be seebo rey nga rundu foogaa be yongaa la mi na esatu ko yokku o samedi o retna retu ñoxoloxo deno yoqu ten fa baba ke ngorgor maga ma gor wa ko jubli a ngana nana ngada o fuku tamit ke jate wala o jebke jafe bo fodan kan ma tewe semora waga jebi ga xe sob si wena ɓoof nu coɗan ka ando naye a warani o jang ya sacigido den kam nu sacigido ten boobu da ngay naan da doxata sax ma tafsir sogol nayi o kiino cooɗangaan ke andoona yee ten oxu mbar tafsir no xooƴo tuuñ ndeene a las yo tod ke fop fo ne nqet a jafe jafe o koor ole kile tuum ten a doogo ref maaga o maad ken foogaam we andoona mayee maɗna xa maana ngoor ke layi den nqooxaa maɗna xan xeexal ma yaakaar nga ni doo ko jëmu na dëgg-dëgg am maa ngi faa nekk cinquante koor te du ma dugg loolu soo ko ñëw ci Dakar góor maa ngi koy layee di koy comme maa la tuude yow too maa ngi xeta parce que chef yaa ne def ma ndaa wi naa layi o ken waano ngir fan jafe-jafe o rimɓe na jafe wala ngar fen gaɗa ɗetgaro pour na jafe-jafe ina firo o ken waano o ken waa nde roka a jafe o ken waa nde roka o leyaat o ken waano ke jafe ken waano ke leyaat Okumpa soxna yi liy yëkkal waa ñu ngi sama jafe-jafe daf ñu ëppal waa rek ñu ngi ko tànn di wax naa leen au part de bopp mbi jéggi seen tànn xala xala o leera sako ko mane nananu ñaayi kore tan ajo kuma ngene yete ilore maga koli garu si jate ba lay leera koli jabe jabe dala wene jafina sore nawe sare nawe juufe nawe kore nawe Lobetova Lobetova Olera. Selalu kan dia lepas lepas lepas lepas masuk itu waktu itu. Aje emak. Sebab saya untuk memari kori. Ada ni kata lagi yang macam lain dia ujian jaga dera. Jangan tetap. Gokar dia nak hak. Suple kata. Mari pergi. leyɗe maari e jigene ira jille jegade ira jeg awandata te leyɗe taten te andata de te gopnoxo no pipne pubano maga ten maari ko a jog supna daskan supna teno fino fudora ɓa kin sekanega fopaxe aɗaega gopidore moɓewe a jeg a jeg a xaxak nu nanga limaj sotan jeg lima ke to nu lim keke ando naye tene ɗumen xan nu mu anda yi fop rek lulaagayi lulaagayi Musa a xayo xam mais toolu jafe nayi fat fat ɗayi o koor ba faaxa xawe naaga xawa xiɓe to xan ten repose cosaan a jafe ndeke gasum yootoon maa buga jafe den ga ɗigoxumaga fi ke a fiya yede ɗoxa o ñaaye la chef o dopu de bon fat tapat na junak den mbida a koɓe mbida koɓe o mbaɗik ma te leyne a cafe ko waranga no mbaafa no jafe kaaga a cafale ci jéem du jëgul a cafale jàggoo nga du jëgul te lay dee dakoo rapport te gaa ñoom ko brisé cati te doxaa ko jëgal seen jafe saa doxo ñaay ko tamati ko ñaaba te dem nga pour faa nga ubbu daay boo ubba naa ubbu daay dem di gis te mbat ba ma te lay dee koy war a ngaay baafal te woo jaa jaa te war a ngaay baafal ngay tamit jaxloo nga du jëg yaa nga jëma ko beeg. Fati ko fay foofu la yaa ñeent menyai udah. Tidak ada yang tiga. Sini aja sini. Isteri yang isteri yang budai, isteri yang budai. Nah, ada jadi jadi salah jadi salah sini yang budai. Kuna lan mege, budai mana jadi jadi alai tak kuna. Nih nih terus itu kuka. Lah, saya sahabat saya tak jilur. Dia nunggu kuat zombo ge yaani ko tabe tabe ki ñaal yo be bari ko tabli go ñaali bi ngal ala at ko tabe tabe awata nga to kilo atanga le kala hat xaja fu xaja fu kilo ko tabe tabe tabe do de nga kilo gis kilo da ko fi jaay sa do lo xama ga da di da ya xaw ko tabe yo ko ma ga te takero dara to na fi da fa do lo nangul na ta ta xool ngor ya, kan, ke pada ketok mat mate mapi sapula bi ga ke ke ke tu da ba au ke e je ga anu nei lu da ni kan kero to pri ba de da wa ka hu du bina da di ke na hu na hu na hu na da ka du nu ke na ga anu nga ke na ke sa bo tu ga anu yo wona nyo wona sa te ni de wona to te ke na ba wa ki lo ki ta Muzanya kira-kira, ya tak berapa-apa, tentu banyak yang berapa-apa. yaa ngoo kee ka ka yi daa fa du góorgóorlu ndax teen bu te asu dik dugloo wee de garna sebu adodoo xa de o ken waan jabe misana ñaxe ata o deeraan kuran ndayi aga day axon oxu leyoona meeke doomi gelwaan laa fatan day defenaan jafe-jafe meeka jafe me piir o ken waa takkee o leeraan o ken waa takkee ma bari asoo digin bari leyraan o tega gaama jege simaxol yokoy ndefa def des baax len maga daga den maak te gay yo faye nane a dago den maak te defa njama fada leyo rek runa a dago den maak njama mi fada e dege ma tafarana a njaba a njaba a njaba njaba ni sukiri ndaga nduge diperlakukan. Ya baru Gorba kemana dia tu pam mata tak ada dia dia tu tiga tu jokong mata apa tu banyak mata. Mungkin banyak apa jokong enggak mata pak dan mata. Kan rumah. Yang baru pada ini zaman yang berbeda tu mata. Lah, kami tu buaya. Nah, mereka ni kami berapa kata anu daya dari. Eh, hey, mat nangga dodam nangga itu doang. doda o doda ngaan te ñàkk la vie pour voir encore peut continuer <laughs> eh? mi kees mi wax jeeg lana ko dodirama ten ndi dodirama ten kan mat sopide de an holi suunu ñeeri koor yaati dodename saltigi saltigi jaw faaga yalla taguroogu yaalo ma ɗum a piira yaan de a walangaan bo kam pinke wiine a fitaaga am ndena denu adko xawna fa lay ke nam a jega ka layema te ndaa fat kiimum o coté lan cosaan naaga na nekku euh, ne a ñofe koy a jeg a jeg ye andoona ye aga ɓiis développement andoona ye a ñofa ñof wiin we ngara nana min naka magna nga ay kula kula ke may kula mun ko on han ko ar min ta ta ke ya o ka wi na ino me ka tinji ko mi wala ka ke atu ta ta ke ko pati ngel bono yo pa maga ye ando na ke la diga ando ke ngel akolo ma ando na awaga ko ko hum ade ka ando na wa bi mu ne ko ne ko yi lama joxe joxe xaye a leyra nga joxe joxe xaye fopa meme xaye ganaw nene gena umaat nda fopa meme xaye jara ko maka jeno cara pe fatma cara ko pe banna abanna ti fata min kama jeno fata ke banna ti to wele fopa meme to ko rasul ta ala ya onena nga lay ken delo de fata min kam ham baga fata min kam amako ko bi ke batu ko hay anndore no fogatani ñaamina koɓe gefe gefe aref ma ogo mbige ma tum paaɓeji ko hen ɗumiji ko hen produit mberaji ko hiɗeji ko so kon boyo ko turatin maga te yaɓete kaga te jarani traitement umat ka won umat ka wonga yuliɓete yon ko tente mbaɗira jafe jafe yaata sakkaonagañe maga ɓe ɓe tetelene mbega telene ngore hatugo um fewmagama telene ha a buginma te hakkugo seɗo donnaga maga o donnaga o donnaga ma o maɗo mbiya farɓa min kam kene farɓa min kam dende ɗum farɓa min kam ana ɗum nombola aɗone o kin waginano o rewandude luɗu bele donc furora ɓana ye andone o kaga jega o mbaɗkitiron jaaj o ten ando ko faloxa jafe joto ma andoɓe jafe koy ino xe fo ko ina xeesnof e lamu ma o maɗen ɓe yabuk anga atiɗo maɗe o maɗa jafe jafe han jafe jafe gata ko no joɓonga han jafe jafe gata no joɓonga a faga koxe maɗa ɓe yajilna aɗoyaɗen te leyadele o maɗo hen fata fadi aɗoyangeje teladen a ah, a fatiranga yipipidel de maɗa ande jafe jafe sahanede nam jafe jafe neɗe jaha muna yefa jafe jafe jiɗ ino takun nda yefana omay ko ciro la falo arbu maɗo jofe jofe premièrement tan jofe jofe mbay ko ciro jaay ndele ɗume aɗo wotte farat ciron aɗo wotte biran kureja aɗo wotten sorambal aɗo wotten fajangeyo fajanga o o kaldu ɓene refnuɗuɓe aɗa waɗi bini nana kala yimɓe mo mbay ko ciro te aɗo hoto ko maata ndele ɗume dow noften fara ciro fara cirola dow noften biram kureeje adonof ten nana fari kureeje adonof ten farambal adonof ten mayum adonof ten barkasira barkamelle adonof ten lassamba ndiay adonof ten balamansa adab adonof ten mambooj adonof ten ndene ndene mberi adonof ten barkasira adonof ten farajojo mbooj adonof ten sambooj adonof ten andoona yee saam o ƴawata meen girat ulit o ten falooxo birat Diouf a doonox teen Bakka Kewool a doonox teen Jileen Njaay a doonox teen Makumba Oylo a doonox teen Jileen Njaay ɓaato saxtoxiid waaw maa koy ko mene koy men andoona men kene ke ngartu mais mene mene tubaab oxe gartu a commencé comme sokona xe magna a ngeto jafe a magna denndi o soɗɗo fotna o o pourgara en fande heɗo o sokon keɗa mbi ko carton fayjam carton nde aɗo wino o sokon nga fof a jaɓi ƴefede cosanna angoɗe jahen maka kokowa cate fof a fiñe wona ñoowa a fiñe mamo hen a jang a jang canton a fino sokon kam an aɗoko balla chef de canton ano yo <laughs> 이 알로나의 깨는이가 요구바 어떻게 하는 거 발로 쉬고 갔다 요구바 요구바 아무나 이야기 아가모테 아리나 아가모테 나나 우스만 자마바 아가모테 세무주 알레데 니가타 아가모테 yéggal ko fa ñoo na né ya ka fa ma ko le ba akkar mamadou mamadou ko ko le ba akkar ya amo né bo mi ko jé ko fa ya ya dem ba tax ni chef de cadre ni ala chef de cadre ni dara usma ñu la ko ñam chef de cadre ni sama la ñu ñu def na chef de cadre la dara ñu jaay ko def ko chef de cadre ni la dara ñu jaay ko def ko chef de cadre ni mais léegi nag gàttu ñu daan tàngat ak ak war a mel lay nañu bu ko defee ci lay lay. li àndoon nañ nekk nekk am ci kooku ak boobu parce que àndoon nañ leen waaw am na àll amatu kooku ak moom te àndoon nañ leen mais mais Mamadou Ndiaye Wali ak doon wax teel. Mamadou Ndiaye Wali ak doon wax teel. nee naa Mamadou Ndiaye Wali ak doon wax teel yëpp Mamadou Ndiaye Wali awat na mel foo ko amee Abdoulaye Mbaye Katakuwa jina mema. Yakumla Abdullah pale wakna mema. Umake tele ayela jumara kusel otaka kumema. Ohaga yete wakna mema hande la potiba amo. Yete kwa kwa wakna mema Abdu Abdu Abdullah kuli bali kutem. Toka mema. Yakoi eh susana nyekunyo. Fadini fadini kaka kasete. Mena kwa susana apati kenyo mema kaka problem. formes variables variables de de de de de du royaume du du du Sine. Quoi que naka rek ak kii basal du royaume du Sine du Sine mais maa nga ko tegu ordre bu attaxam ci kóol bi àndoon nañu ñeenti maata ñeenti maata. o maata ñeeno ko anga yara fo maaka farin meek farban bin kama farin meek nana salmi kege ngar caamur ke ngar o nananga fale ɗomol falano ɗomol dak nda ko maati jegen to sohla kaga ne olof ne la anda olof na la ino ino na la jewen nana jewen ajenay kaga signifie na ala wona ye parce que o gewen refe kino xa andona kino andu kene personnalité ana ndino maat bo a taxa kaga lay gene gewandel nen géewal leen dana ko def ak géwél waaw géewal ñu gën a ànd la nga ñu rëy géewal ñu rëy kii ak géwél te foo koy te foo koy pesant lool daal boo tax na kay su taxawee naa ina nga nu mbaasa naa eh, mais sim naa ko gis maa ànd ak ñoom ko bopp mais loolu kay naa joxe ñoom ñaar jëlee daa ko xam ba sama demee te defee bu leen def ko te defee bu leen def jafe-jafe moo famille en 1986 alaaji maama nji ñu ngi ñu bee ma xam ka nga xam tali mu fen teen o de la xam ni sax lege ngam de la le fa ko ma xamu di ina ka ko to ko to ko ko be de sela di ban ko jetu mo an ay mo an am ka fa la ko le alaaji e jati di e garaga e de ya ni ak waxtu fa ma pe di ngul afada e ni alaaji hada ya ko jafe yëngatuleen te it loo a jafe-jafe te yëngatuleen des am na jafe-jafe la ñoom kon am na waa bari ci na ku xalam ne ane et wax dëgg ne ok rek la góor ko la ma foofa def eh, ndax na Gambie fo eh, def na Sénégal fop mexe sima e mosandoma itakarena euh, euh, monsieur le maire mamadou mamadou faye maire de ñorana santal mosanda wax mitane euh, akkaren représentant kena monsieur ndiaywan i association en goɗe awe simnade simna yit o foge tewna men fop kat mbayna hik furna hikke fop ndax Caakataari ɓay saddigue sénégal a ndef xar ɓay pour naxu ke a ref Gambie invité ke ndefna meen fop daal sénégal i diaspora fe fop association ne gone axe gidma a nuun no kene njafna ngar comme nek nu teew nu teewin i ndiiki koy question ke ka jegna solo yo parce que itam tigi ino fop mbog ino fop mbogu yo xewle ba taxaw foofu war a war a leer na na koo kenn wi leer question di ka leer la koy adame oxo jike gina tiya meek nangam sangam o xaaga o lakas nu andona meek rek o waaga adame a laamit na xar taxum tege atel me xewole o xet jafe-jafe xar taxum te atel ko atinke andoona ye kene o ɓiranga naxu parce que ino yit o biro rek i mbi'na refeere o kiin oxe ref na décider a bo dara fi'e ka i mbaxtaanaayo question ne na poser ik e no bureau na même en assemblée générale weeke lay no a njafe a wara gis weeke o mbolu weeke maana ten refe comme que première édition yo parce que ƴetma andoona yee pour ga' maaga xan a yoɓ parce :fra que :fra ke i nqeɗayo ten refu o xiid nu retna keke jegatan pourquoi :fra Coy wala o Ndofaan wala o Mbour ke premiere :fra édition :fra yo ten tege atan ke parce :fra que :fra anda yee o naranga ret a jafeñ meme :fra o pour la :fra premiere :fra fois :fra o jeganga auto :fra rek kuɗooxkan jaf lakas fe waaga ɗeg taxu pourquoi :fra voilà jama ngeen kenn taxul euh, ren te atel meek a fiyangaan i organiser angaan rek i teet résultat ne parce que indi kay luppina d'évaluation i teet bon voilà nda wusana pas marché côté ne andoona yee voilà ke ka war a ɓaat kaan a war a jagan te jagane i ke buguma daal euh, leerala parcelle refe à ADMEC, au bureau de Mandone, au tribunal dirigé à l'association, hein, au tribunal décidé. Refait décision au kilo. L'association, hein, euh, na charte qui andone dana anyanya, démocratie, manam, win teme da mo panga. Kebi momul na maya leina, manam, ronga teme do, win harabe du katik ki alaike, kagana dikka. Puisque, euh, bolo, organisation, bolo, ne... Et apil apou apa apet,ковn navat Kiphte in tonnen Andre Kovale manchmal sapte pou ap per br coupe vade patse l ak Se di kou jenye tepe diya bel, se kwa yi anrenmanman, si nou wapen sa pwamanman, se anpon kou jenye la, moun teke la ou meni. Waj, ti se zan moun, tejenye vina, tejenye jenye, moun teke.

xam ne bu ngeen bëggoon a bëgg dem ci yeneen kon nag bu ko ma soree kàddu bi di leen nuyu di leen jox nuyu conseil municipal bi di leen jox nuyu monsieur le maire léeg-léeg wax ko kon bi moom jagle la juddoo kon kooku ci biir jafe la bokk tey jii bu ko fi fekkoon moom mooy ñëw président ko boppam donc ñu ngi ngay sàkku ci yéen ñaan ngeen gën ko ñaanal wér gi yaramam dina jëm kanam euh, ba nga xam ne deuxième édition bi bu soobee yàlla bu jotee dinañ ko fekkee ak jàmm ak salaam maa ngi leen di sant di leen gërëm ma jox madame Sène mu wax ak foog a Ini adalah lupa, ini tidak mengangkat lagi. jeggeɗi ha cawatte ɗi par ce que mbanɗa atosare ɗumina ɗum ɗeyɗanama ha somre même ɗum coɗɗani ino lerde sahi ɗum mbara mbawa tew par ce que kalanaɗo taye sino hen fokatami keɓe fiyani mais au moins a anda ye sane fane a jega naate ñaccade ɓe jamin aussi bamo katanna programme monsieur le maire a fete privale secrétaire de gouvernement a refe men nda interrogante e non la madre non deve scatenare Ormai non poteva sulla madre non deve a e che fa mi lascia la nostra una serie a fare ne fa ne su ne in cari ciao mi ne i di ragazzi sono in cui salissano a non

yung kumiesa dalan ng kasta kasiran din ko niya hayom sa jesus sa jesus sa kintangan suko at jesus sa siya kung sa gerus na mga niya sa dalan sa lumen niya si po lumen ko ay edad niya jadi pala si pa kini ni na gini ni na ko pali ko kumiesa kasi pwede niya suko na niya sa kasi kisma Bolehlah nanti saya adalah bayar dengan negeri Anu anu negeri negeri wajar. Akan kita nanti berpenang unaponameze na mtu uponameze sa den nokkin jibide koye golle lam mbaɗiɗa sukon hande mbaɗa meɗeɗen na hande no wawi kono nan kaɗa histoire ayami ɗeno min binnak ɗeno mbiɗ wangani min modi noye mbamodinoje kono golle wawiɓe a sukon haɗeni jafe ɓe jaani falano gueɗanami no kattanmo yaaro ɗum mbiyana min akidal may ndimin fogol fofolal lulul sumbaynaten walla lulul yakanaten yaɗumo yaɗa ciyan en dirmi ha kawenan jokke maɗe nan kiddan mayu am mayu am mayu am mayu inde bo hekkate kadam ña ɗum bornan my bago po namin akita-kita. Gano na po rin pibitanin sa atin na kumasin sa dyan namin. Nung bata yung nagsalbo, dyan din lahat mo kapag nabinanin. Boy, doktor ko, butin lang na ano na daan, lahat ang danganin niyo bukit. Hindi din sa siwan na niyo. Sana na ako, diyari ako, diyari sa lamin. Salamat. Thank you. Thank you. الجحيم